nit ñaa ngi fi def yu gën a ñaaw te kenn waxu ko xool leen film Atlantique bu sénégalaise bu dëkk France defe naa bu ñu tuddee Mati Diop nga xam dañ ci wane benn xale bu ndaw defe naa 19 ans la am. Ah, fukki at ak juróom-ñeent rek nekk dëkk fii Sénégal tudd Binta Sané waaye film boobu man dama koo seetaan li tax ma seetaan ko Obama président Obama. moo ne film yi ko gën a neex film boobu ci la bokk ba mu ko gisee nag ci laa dem Netflix Netflix da ngay fay ay américain la rek si internet bi ngay fay boo fayee mën nga seetaan film bu la neex waaye film boobu Atlantique ba ma ko seetaan ma damaa yëngu ndax xale bi ñuy wax Binta Sané c'est vrai que gagné ne am na benn prix bu mu gagné. Euh, xaw ma César la xaw ma nu ñu ko tuddee euh, France am na daal lu mu gagné foofu. xale bi léegi dafa siiw boo ko gisee mi ngi ci tapis rouge yi waaye ci film bi taatu neen la ci def waaw ñu wane weeni ngeen baal ma ñu wane taat yi ci biir film te gisuñoo benn Sénégalais bu ko ñaawlu gisuma. Matar Gueye ñaawlu ko di wax dañ ko war a tëj ñu gis ne xale bi ci film boobu mu ngi fóonante ak ñaari góor waaw ñun waxuñu ne Binta Sané dafa bon waaye nag képp koy jullit xam nga ne loolu l'islam nangu ko te chrétien nangu ko mais waaye waaye comme moom léegi star la da xanaa dañ ko baal kenn waxu ci